salaamaaleykum Big Pato nuyu nañ la. madame Badiane maa ngi lay nuyu di ziar di nuyu waa Sénégal yëpp euh, di kontaan tey rek vraiment tey li ngeen def neex na parce que en tant que organ de presse ngeen déplacé déplacé au Sénégal ba New York sama me dis que c'est à saluer et félicitations lii mooy journaliste journaliste investigation ak effort. en tout cas ñun moom ñu ngi la doon xaaree Sénégal te ñu ñëw États-Unis fekk la fi lu waral loolu. waaw dama di xale rek nekk si yoon di liggéey te sama liggéey pour man amul limite parce que dama fixe jamais de de de limite sama pour man chaque fois damay def tout pour atteindre ko te dama nekkoon ci sport bi nga dafa doy waar mooy làmb foog nga am doole foog nga am masse te sama combat moom mu mujjee bëri ñëpp xam nañ ni bëri bi mu ngi ko xeex mu ngi mais doole ji dafa desoon. waaw wuli moo ñu tëgg war koo organiser. moom laay xaar nag moo tax sax bëgguma ngeen jël ma saal nag bu ngeen ma gisee jëlee saal wuli day daw tapet la du jël combat bi moo tax bëgguma sax wane samay entraînement moo tax maa ngi fi am na yeneen combat yi ñu ma proposé woon aussi mais yooyu ça m'intéresse pas moo tax. waaw moo gën event dañ ma proposé woon 6000 euh, problème mais comme que 6000 problème problème daa bëri man bëgguma problème <laughs> te man borom non non violence ça ma bàyyi mu seddu quoi parce que dafa bu ma nekk. te sama yoon aussi du dara du ma ko yàqal. mais dégg naa yaa ngi MMA bi tamit. waaw MMA bi aussi maa ngi ay proposition am naa lu ma proposé France am na lu ma fi proposé maa ngi xaar juste pour ñu aboutir ci contrat loolu rek moo ma dese moo tax ma ñëw fii pour rey sam bopp parce que yëfu góor la quoi amul lu amul ci àdduna li war rek mooy liggéey nekk ci chaque jour nga ne saa ñu fëggee rek fekk ñu pare pour nekk ci pour a gëm ñu kon tey ñooñu jar nañu def effort yi ñu def nii. Ba yow doo bàyyi combat Sénégal yi. combat Sénégal non du ma ko bàyyi parce que man lamb mënu ma ko bàyyi police mënu ma ko bàyyi dafa nekk li nga xam ne dafa nekk sama deret lamb Sénégal ko bàyyi même bu dara bu ma deful dara samay dem seetaan lamb seet naa xam na dara dama ko bëgg sama dara la nekk combat yi fa nekk yëpp lépp laay suivre ba ci tey kaw Gourdin naa ko sama deret nekk lamb mënu ma ko bàyyi mënul neex ba mu naqar ba mu bàyyi lamb dama ciy nekk gën a yokk sama doole gën yokk sama doole kay pour gën a atteindre sama objectif rek kay waaye mënuma bàyyi làmb. instant bi mën nañ na champion nga parce que gis nañ euh, Big Pato 2. waaw Big Pato 2 sama xarit bi ma koy salué au passage hollandais bi waaw loolu mooy liggéey sant yàlla parce que ngay def benn affaire dem ba ay nit la ci roy am na yeneen booy bu ma woo sax ne ma mooy Big Pato Junior ba tuddee boppam Big Pato Junior bëgg ma ba tax mu def concours police tuddee boppam Big Pato def armée jugee armée ñëw de concours Petit ba jàll tey te loolu pour man satisfaction la moo tax ma ni gars kenn ku nekk rek ci sa waar na ci liggéey nekk ci leader parce que leadership moom lañ soxla ci sénégalais yi ak africains yi moo ñëw ni woon fi tey ki nga lañ fi doon def tey affaire leadership la mooy ay nit yu gëm seen bopp di def tey yàlla tax di liggéey aussi di jaamu yàlla loolu laay encouragé sama rakk yi ñu def ko. pour ñu góorgóor si comme yéen li ngeen def nii rek non bëgg naa tëgg mag a mag parce que ma a mag cinq grand combat laa bëgg tëgg su ma ñëwaatee incha allah. cinq grand combat. maa ngi. kon am nga xaalis de xanaa. ma xaalis yàlla rek moo ñuy dimbali ñu am ay partenaires ñuy jàppale <laughs> di gërëm waa Belgique ku mel ni dara ak Laman bu Italie ak madame Boy bi par ak grand Momo Ndiaye DG ak ñu nekk suñ ginnaaw grand dafa am comme ne dama koy saluer lii moom moo may gën a neex ci wax ji mooy Iko Farxat directeur l'écran kooku aw ma fay mention spéciale à lui yal na ko yàlla yokkute ba mu gën fi yàgg ak ñoom Tony ñoom Kuli ñoom daal kulim jum daal. waaw ah, ñu ngi lay sant di la boo amee loo yóbbante waa Sénégal tamit nga waxaat mais waa Sénégal mooy seen doom mi ngi fii United States liggéey fii nag gis nañu may capturer dama la ni ma mel noonu laa mel naturellement. dara mu mënu ma soppi ci àdduna sama làkk laa gëm olof bi laa gëm donte ni maa ngi làkkee mais gëmuma loolu du ma fi ñëw naan ay yu noo war a say yoo amul ma njariñ <laughs> li ma làkk laay làkk sama làkk laay làkk lekk sama mbaxal samay daxin samay ceeb <laughs> kon gars yi xoolal li ñu naan xoolal dof moom du bu sa wér te xoolal gaal dof du bu sa teer wala bu teer du neex bokkam kon gars yi ci kanam <laughs>